juróom-ñaari waxtu ci ngoon xibaaru marax yi li ci gën a fës tañu namm ko jukkee bokk na ci ci maître Juan Branco bokk ci ñi layal Ousmane Sonko nekk ci réew bu France moom nag xam na ne am nañ ay firnde ngir topp état bu Sénégal di ngeen dégg yaatal yi ñu ci Ibrahima Mansali daal di defal ci biir xibaar yi njiitu réew mi Macky Sall daal di yëkkati ay kaddu rekk ca diwaan bu France kàddu yooyu mu yëkkati nag indi ay xel ñaar ci ñetteelu candidature ba tax ki nga xamante ne moo di Albert Mamadou Sy xam-xamam màcc ci wàllum politique indi ci ay yaatal di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. ci waajtaayu tabaski bi ñu dëgmal nag soble nekk jumtukaay ba nga xamante nag dañ koy soxla lool ci fête bi le waaye nag njëg gi seer na ba jéggi dayo leneen lu nit ñi soxla tamit ci jamono feetu tabaski bi di ay ndab yu rafet waaye nag jaaykat yi gisaguñu ay client ci seen ay boutique ndem bu fekkee wàcc na ay ndab yu rafet tamit mbokk yi lii la ab tënk la neskis ñu yaatal ñi bokk ca commission politique bu dialogue national nag daal di nañu rek amal seen juróom-ñaareelu séance de travail ba noppi rek daal di déposer lépp lañ fa tënk ca yooyu les séances nag ca taabalu coordonnateur bu dialogue national bi di Moustapha Niass. ñoom ñi la nag jot nañoo déggoo ci fukki poñ ak ñett rek waaye nag ñàkk déggoo am na si ñoom lu toll ci ñeenti poñ ak ñaari poñ ya nga xamante nag jotuñu ko traité bokk na si gën a ràññeeku si ñu déggoo rek wàllu modification article L28 ak L29 bu code électoral bi nga xamante nag dafa delloowaat li nga xamante ni moo di Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ngir ñu mën a samp seen dënd ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ci atum 2024 waaye tamit di saytuwaat procès bu Karim Meïssa Wade naka noonu ni ñuy tànn ki nga xamante nag mooy jiite kujje gi jot nañ ci déggoo loolu nag du lenn lu dul ki nga xamante nag mooy jël ñaareelu place ba ca élection njiitu réew yi ñuy amal ñeenti poñ yi nga xamante nag déggoo amul ci seen biir ña fa teewal nguur gi rek ñoo ko daal di bañ bokk na ci li nga xamante nag moo di njiitu réew mi mën na rek ci ba muy nekk njiitu réew mën a jiite li di parti politique ñoom ñu mooy jëriñ ju ñu dénk wàllum biir réew ngir rek mu bañ a organiser jongante yi ñuy amal ci biir réew mi jox ko ka nga xamante nag day tëddee njaaxaanaay waaye tamit bokk na ci ñu dakkal bépp topp bu ñuy topp ñi nga xamante nag dañ leen di woowee ay détenus politique ak li nga xamante nag moo di remise en question bu déséance électorale bi nga xamante nag juge bi moo koy daal di rek prononcé ñoom ñi la nag ñent yooyu dañ ko bañ ba tëdd si suuf bi la nag jotuta addu ci rek ñu 24 bu code électoral naka noonu gindee rôle bu justice ci li nga xamante ne moo di processus électoral bépp commission buy liggéey ca boobule dialogue national naka di nga indi rek ngir présenter sa liggéey fële ca séance plénière bi ñu war a amal gaaw bi ñu dëgmal fule ca salde des banquets bu palais de la république ca ëllëg sa maanaam ca dibéer ba njiitu réew mi Macky Sall naka dina amal ab adresse à la nation maanaam dina génn wax ak réew bu Sénégal soobu ngir am ndam atu 2024 di kàddu njiitu réew mi Macky Sall te amal ak sénégalais ya nekk ca bu France ab coow daal di rek euh, jëb rek ci ginnaaw bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina wax yooyu les kaddu ñuy laajte rek ndax ki nga xamante ne moo jiite alliance pour la république mooy wax wala njiitu réew bu Sénégal mooy wax ci jamono ja nga xamante nag mbirum ñetteelu mandat mu ngi wéy di def ci réew bu Sénégal. Mamadou Sy Albert xam-xamam màcc ci wàllum politique tontu na ci lu ni mel ci jokkoom ak Henri Sène. bon fu mu nekk nii mën nañu wax ni président euh, Macky Sall candidat la.

mu mu am problème mooy que troisième candidature bi opposition àndu ci société civile àndu ci am na yeneen sénégal yi aussi ñu am faruñu fenn ànduñu ci donc loolu ñu firnde mooy que ñu ngi jëm ci deux mille vingt quatre présidentielle bi mais dina am coow troisième candidat bi moom dina am coow léegi nag coow bi naka lay tëddee est-ce que discours yii la euh, rek la war a yem ou est-ce que dina am ay manifestation est-ce que dina am violence loolu yëpp moom muy muy suñu kanam maître Juan Branco ab avocat ca réew bu France naka noonu bokk ci ñuy layal Ousmane Sonko moom nag jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ni ki tey foofule ca France di xam ne nag am nañu ay preuve ya nga xamante ne nag dina rek topp gouvernement bu Sénégal ci événement yi fi amoon depuis weeru mars 2021 ba suñu jamonoy tey ñoom ñi la nag bi ñu dajalee lépp mu ngi solu ci ñeenti junney élément ak juróomi téeméer ñu topp ci rek lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ci ay suspect ñu jàpp na rek seen loxo laale na ca boobu le mbir fase nañu yóbbu lool nag ca cour pénal international yaatali ak Ibrahima Mansali Juan Branco di avocat Ousmane Sonko ni ki tey daal di jàkkaarlool ak taskatu xibaar yi ginnaaw bi nga xamante ne jëbal na benn document ci cour pénal international ci ay manifestation yi amoon na mars 2021 ba ci ndorteel mois de juin bi ñu génn te ay nit yu bëri daal ci ñàkk seen bakkan. des éléments de preuve des documents des contrats. jamono ji bu ñuy wax ak yéen dajale nañu suñuy preuve ay documents ay contrats ay vidéo ak ay témoignages yu bëri. yooyu les documents tax na ñu daal di dajale ci lu toll. juróom benn fukk de crime de meurtre te yooyu les documents boo ko dajalee mun na doon juróom benn fukk crime contre l'humanité naka noonu yi itamit dajale dossier yu bëri ci lu ñeel wàllum emprisonnement ndaxte ñu bëri dañu daal di salfaañe seen ak ak yelef. exécution et d'autres actes inhumains avocat français bi leen ñi koy dippee défenseur des droits de l'homme di xam le ni kat liggéeyam boobule sax bi mu doon amal danaka ay organisation internationale yu bëri jàpp nañ ci liggéey boobule yi ci mel ni Amnesty International Human Rights Watch ak Croix Rouge international bu Sénégal ngir mu élaboré a élaborer document Nous en avons gardé 710. am qui ci suñu disposition ci lu 710 supports te loolu dinañu jëriñu ci wàllum communication ci 170 dossiers bi nga xamante déposé nañu ko ci bureau procureur de la république Fim mu toll koy sas procureur mu daldi ci enquête ci élément yooyu yi nga déposé nañu ko ci tableau wala moom sax mu daldi autosaisir ci article 13 et de se saisir de lui-même

te article 15 mo koy dëggal kenn ku nek amna sañ-sañ ngir nga mëna saisir euh, cour pénale internationale kaddu yooyu yi nga xamantene ministre des forces armées yëkkati na ko comme moom jàpp na ni li fi nekk di crime contre l'humanité te amuñu capacité ngir euh, saisir euh, cour pénale moom maa ngi koy demander léegi saisir cour pénale internationale comme moom nee na Sénégal dañuy respecter droit de l'homme

avocat chef de file bu parti bi Pastef maître Branco di xam violence ni kat violence ñu ci manifestation ci mars 2021 japp ci ndorteel mois de juin bi ñu génn faw mu am poursuite judiciaire ñëpp ñi nga xamante ne cité nañu seen tour ci violence yooyu le dinañu wuyu ci cour pénale internationale député bi fara ca coalition Yewwi Askan Wi Guy mari Sagna daal dina rek jébbal ab laaj gouvernement bu Sénégal laaj yooyu nag toll ci juróom benn mu daal di koy xaatim rek bokk na ci yi nga xamante nag laaj na ko di rek suspension maanaam dakkal gi ñu dakkal bus Dakar dem dikk yi diggante dakaar ak Ziguinchor ci jamono ji ngay xamante nag nit ñi ñu ngi waajal fête bu tabaski naka noonu leneen la nga xamante ne laaj na ko di jàng bi ñuy amal jamono ji su xareer yu bees yu ci mel ni université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru waaye tamit eh, yenn ndongo ya nga xamante nag seen ak ëllëg jaaxal na ko ba mu laaj ko bokk na si Yaya Badian ak Lamine Dabo ak ki nga xamante ni Daniel Tafa Jara ki nga xamante nag dañ leen di toppee yàqu ya nga na ci université Cheikh Anta Diop benn fan ci weeru mu juin ba amal ay jàppante waaye tamit eh, yenn mesure la état bi daal di jël rek ngir saafara jàngoro ñi nga xamante nag tollu nañ ci ay fukki doomu aadama yi nga xamante ni mi le dafa wax na rek état bu Sénégal daf leen yoral ay parcelle wala sax xaalis Guy Marius Sagna daal dina jébbal rek ab laaj jëwriñ yi nga xamante nag moom moo leen daal di concerné rek ndax dëgg la état bu Sénégal dafa yore rek ay bor weer yu toll ci ñaar ñi nga xamante nag ñoo di trois mille jeunes ya nga xamante nag dañuy liggéey ca programme xëyu ndaw ñi moom mi la sax di dolli beneen laaj di ko rek jëmale ci décret d'application article vingt-neuf bu loi d'orientation sociale bi nga xamante dafa fixé ab pourcentage jëm ci Domulago dos Lago. ñu àddu wax ci programme cent mille logements yi fii ci réew bu Sénégal ñu yore boobu les services nag fare ca ministère bu urbanisme logement ak hygiène publique dal dinañu xam ne nag jot nañoo tabax lu toll ci juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay dëkkuwaay ci atum 2022 bi ñu génn jëm rek ca boobu les projets seen mébét nag mooy at bu nekk ñu amal rek lu toll ci fukki junne ci ay dëkkuwaay fii ci réew bu Sénégal buñ ko xayma ak atum 2021 nag nga xamante nag téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay dëkkuwaay rek la ñu daal di tabaxoon ni ki 2022 nag am nañ avancement maanaam yokkute bu baax a baax buñu sukkandikoo ci ki doon présenté boobu les projets di Ousseynou Lindor Diop moom nag xam na ne mu suuf ci réew bu Sénégal nag moo waral rek ñu yeexee boobu les exécution bu programme cent 000 logements fii ci réew bu Sénégal coordinateur bu délégation générale jëm ci wàllum protection sociale ak solidarité nationale bu pôle sud nag bi Paul Biagui moom nag daal ano seen ni ki démb rekk ne lu toll juróom-benn junne ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ci ay kër rek nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw te fare ca région bu Sédhiou dinañ jot rek kenn ku si lu toll ci ñeent fukki junne si suñu koppar ngir mën amal seen ay activité jëm ci wàllum di élevage di sàmm gi ci période bi nga xamante nag ñu ngi waajal nawet bi loolu nag mu ngi dugg ca projet bu résilience agricole bi nga xamante nag banque mondiale moo ko daal di financé lopp ci benn milliard si suñu koppar yooyu lay koppar sax ñu si war a jot dinan ko jot rek te ñu jaarale ko ci xaral yu bees yi ngir rek mu daal di am transparence moom mi di Eli Paul gi mu ngi ko daal di xam na rek ca comité régional jëm ci wàllum développement bi ñu doon amal ngir rek présenter projet résilience agricole soble bokk ci ñam yi nga xamante ne dañ koy yittewoo lool ci fête bu tabaski bi waaye nag jamono ji njëg gi seer na ba jéggi dayoo benn kilo bi ñu koy jaayee téeméer ak fanweer agence bu yor wàllum régulation des marchés moom xam na nag lu toll ci juróom fukki junne ci ay tonn soble nag mu ngi ci marché bu Sénégal ñu teewlu reportage bi ñu suy Cheikh Tidiane amal ànd ci ak Emmanuel Sarr. fileeg juróom ñetti fan ñu jëm ci tabaski bi. marché yi féetewu ci Dakar daanaka dafay xumb lool fii ci marché légume bu Yoff soble si bari na fi ba yegg ci foo tourné gis ko njëg gi cher na lool waaye mënul ñàkk ci feet bi waaw prix saako bi fi mu nekk nii mu ngi ci 15 mille bu dee maanaam kilo bi mu ngi ci 650 soble boom moom dafa xaw a seer xam fi nga koy jënde moom boo bu seeree rek da mënoo ñàkk a yokk parce que boo demee yi bu fekkee ñu yokk yow itam da ngay yokk rek xoolee lu seer bi ñëw njëgu sobleeg bi commerçant yi di def saa su ne tax na ba autorité yi xalal yoon importateur yi ndogal bi bàyyeekoo ci ministre de la commerce nekkul commerçant yi ànd. loolu moom du ñu arrangé ndax. béykat yi moom moom bu ñu sañoon moom bii dox ba ci kanam ndax xam nga bale moom jàll na bu ñu sañoon moom day dem ba si kanam ndax béykat yi tam ñu gis seen non bu la pour non seulement pour mais population parce que ba pare ñu jaay pare yaakaar naa xaaj gis ngeen gis ngeen soble bi commencé di yàqu parce que jarul dafa bari. commerçant yi nañ ci gouvernement bi mu def ay ngir mën a régler njëgu soble bi ci marché yi. li ngay saafara mooy toog waxtaan immédiatement parce que ñu ngi bari na jaayaguñ ko ñoom dañuy def beneen loolu loolu nekk comprendre ñu waxtaan jéem a xool prix bi ñoom ñu wàññi taxes yi tamit taxes yi moo seer. waaw ñun moom loolu bu amee ñun moom xam nga loolu moo ñuy jëlal ndax xam nga seer bi moom xam nga comme sa mbokk exemple ñëw nga wax ko prix bu seer xam nga loolu tam. Si nous bu ñu agence de régulation des marchés lu tolloog fukki tonu soble pour na ngir bépp soxla jëm ci tabaski bi. yombalal askan wi ñu jot ci soble bi ci yomb ab pour tabaski bi ci plateforme d'intérêt national. bu weesoo soble bi ndab yu rafet tamit dañ koy soxla ci feetu tabaski bi waaye jaaykat yi naka gisaguñu benn yoon ay client ndem bu fekkee wàcce nañ ay bagage yu bees tamit reportage Cheikh Tidiane Thiam Emmanuel Sarr dox nañ daje ak ñenn ci jaaykat yooyu la ndab tabaski bi daanaka yegsi na te ku wax tabaski wax ay ndab yu rafet ak ay yàq yu yànj comme ni ko askanu Sénégal tàmmee di def saa ne magasin bi féetewu ci Yoff fees ki bagage xaarul lu ay client période bi moom vaisselle def ci xaw a di yëngu parce que jigéen ñi dañ koy soxla tout le temps mais nag euh, événement ren bi moom par rapport ak yi fi daan jaar quoi xam naa nag xew-xew yi fi te situation dëkk bi ak fi moo xaw a gàllankoor affaire bi ko ngir taral bésub tabaski bi ak ay xewal yu bakkane soxna yi dañuy def seen kéem kàttan ba wut ay ndab yu rafet comme ni ñu ko boutiquier bi xam ne période tabaski bi lu demee ne ay verre boisson ay tegle bool ay grillage ak fourneau yi nii fourneau lakkukaay yooyu yooyu yëpp dan koy soxla ak ay paaka yooyu nag ni daana fekk moom wax dëgg fa yàlla événement bi da daan da commencé neex daal waaw da daan commencé neex xel commencé daal mais pour l'instant nii moom doy na waar daal du lépp lan mën a wax jàmmarloo yi fi xewoon bu yàggul fii ci Sénégal gàllankoor na lu bari ci bu ñu ci Abdou di ab commerçant moom mi jot a dund la jafe-jafe. ah situation bi day li ko changer man je pense que ne comme ak ren ni mu demee nii moom comme yi fi jaar yi fi jaar ak extra manifestation ak dëkk bi li ci la xaj euh, ñàkk jàmm ci réew mi rek a ko waral waaw mais bu jàmm amoon moom yaakaar naa daal xel dina daal lépp dina dina dina muxtaare comme nam daan demee. bu ñu sukkandikoo ci commission nationale de concertation sur le croissant lunaire alxamis bii di ñëw la ñuy feete tabaski bi fii ci Sénégal mu nekk lu wees ab xew-xewu diine. waaye lu màgg la ci askanu Sénégal su bés bi jubsee soxna yi dañuy faral di yeesal seeni ndab ba tax na quartier boo romb wala marché boo dem jaaykat yi génnee nañ seeni produits di xaar clients yi. ñu dem ca diwaanu Sédhiou foofu nag dañ fa doon amale ñaaf ko ak benneelu édition ziar annuel jàmm pakaaw mbooloo mi nag wuy ji nañ ci appel bi nga xamante nag moo di wootentu yàlla kooku di El Hadji Fodé Saliou Dramé kilifa diine ya fa nekk na woo nañ seen ay taalibe ngir ñu gën a sóobu ci mbay mi rek Bamaro kamara moo yore kàddu xalif général ba ñu teewlu ko ci micro Mame Ndiaye. Alaaji Far Saalum génn na njama gàncax gàtt mu dem gàddaay am na ñeent fukki at ak lu topp muy jaamu yàlla mu jaar ci ay dëkk ay dëkk-dëkk waaye dëkk bi gën a siiw fu ñu ko gën a xam mooy Bisaasum mu dem ba turu bopp bu kenn dëggatu ko ñu naan ko Bisaasu Dramé am fa yàlla jot fa yàlla góor yàlla googu moo dem ba 1967 Sénégal gépp rawat na Casamance boroom xam-xam yi képp ku ñu tuddee borom xam-xam ñu woola ka kër Koli ñu ne ana kan la ñuy tànn mu nar a jiite borom xam-xam yi fii ci Pakaaw Alaaji Forsan Dramé bi ñu demee ba 1996. defe naa ñetti yoon kese la semaine alpha alphabétisation am fii kii Sénégal. benn bu njëkk ñu tuddee ko kabaar Forkaba yaa waaye bu 96 boroom xam-xam yi daje Sénégal gi yëpp Afrique gi yëpp ñu ne ana kan la tuddee semaine alphabétisation ñu daal di koy jël tuddee ko jàmbaar yàlla googu nga xamante ni mooy alxaaji Fodé Saloum Dramé Cheikh Sidia Dramé woote ñu ñëw ñaanal kilifa jooju. bu ñu demee ba ci waxtu gi mu woo adduna yëgle taalibe yëpp ñëw nañu fépp fu alxaaji Fodé Saloum am taalibe ñëw nañu lan moy nañu jàng ay kamil wàcce ay alquran ñaanal rew mi yan am jàmm wàcce nañ ay junni kamil ren joxe wat na ndigal insha allah buñu démé ba wéru tam xarit am fukki fan ak juroom ben moy nek ziyara bi. waa xam nga mbay mo moy li yàlla senta suuf moy lo xamanteni boko lebelé ben bu jox la te an batati sabasana bi la fi kulli sunbulatin metu xabba loolu suuf rek a ko mën waaye nag doomu aadama day góorgóorlu mais kii tax mbay di barkeel mooy yàlla ña yeewoo ca Medina daafe di ab bërëb ba nga xamante nag bërëb bu sell ko waral nitu yàlla kii di alaaji sura katte daafe moom nag fa la fekk baax ay taalibeem nag di sàkku ci état bu Sénégal ñu jàppale leen ngir ñu mën fa samp ay daara ngir rek ndono gi nga xamante ni bàyyi nañ leen ko fa ñu mën ko sàmm ci ñum ana yi mu gën a rafete Ibrahima Bodian mooy njiital boobule organisation àdduna jëmale ci micro Mame Ndiaye. liggéey boo xamante ne ñëpp war nañu man ko parce que affaire diine la diine euh, kër diine yi euh, pratiquement ñoo représenté état si domaine yu bëri si biir population bi donc yar askan. Euh, dafa nekk lu métti te koo xamante ne dafa bàyyi dundam yëpp jegale ko xale yi xam naa dimbale na état bi si lu bëri donc Madina Daffé euh, te yaakaar boo xamante ne teg nañu ko si xalif bi mooy tey euh, xalif Ba Mansour Daffé parce que moo utu ñoo xamante ne lan Daffé Sourwa ba El Hadj Ba Sourakata Daffé koo xamante ñoo xamante ne yëpp lakk nañu mais macha allah liggéeyam rafet na. Nous ñu beaucoup ñu ngi donc au moment où l'État a dit la modernisation euh, Daraï, nous, ñun Madina gis ñu modernisation La cité bi la cité Kataba 1 euh, sous-préfet bi Madina fait partie mo, bokk euh, une popularité en tout cas lu ñu wone si côté diine euh, vraiment bu ñu wootee ñëpp dañu koy yëg donc euh, moo tax état bi dañu bëgg vraiment ñu dimbale suñu autorité religieuse yi suñu guide yi vraiment pour la modernisation daara yi ñu ngeen leen dimbale doole leen pour que yar bi mu gën a euh, oyof si seen loxo. boobu la élément sax mooy buur xibaaru marax yi rédaction bi dina fi dikkaat léegi léegi si yeneen jotaayu xibaar ci kàllaamay nasaraan lay doon.